waa ñu ngi leen di sant bu baax jéego yi moom gannaaw bi ñu ñëwoon ci siyaar bi ñuy def ci màggal euh, soxna maam Diarra Bousso euh, nga xam ne bés bu rëy la ci bés yu màgg yi ñëw nag euh, daadi di jiital ci ziar bi kilifa dëkk bi yëpp sëñ Mountakha Mbacké yàlla na ko yàlla yokk wér gu yaram may ko fan gu gudd. mu dalal ñu ci anam yu dal yu dal suñu xel njégg fa seeti sëñ Moussa Nawel seeti sëñ Fallou euh, seeti sama xaritu bopp nag sëñ Basirou Poroxaan daa di daaneel ci sëñ Cheikh Salih Mbacke ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal nag yàlla yokk seen wér-gu-yaram may leen fan gudd yokk yokk leen ci bépp fànn euh, dañoo jaaroon nag yeggali wala mujjeel suñu ziyaara fii ci daara gu màgg gi euh, di daara gi nga xam ne euh, lu ëpp 500 ci ay xale yu jigéen yoo xam ne ñu ngi leen turee soxna Maam Jaara Buso ñoom ñoo fi nekk ci internat di jàng alquran di jàng diine waaye it di jàng sax ay métier loolu di am di doon lu am solo ndax euh, société bi dafa soxla loolu société bi dafa soxla luy defar nit ci kan ca ba muy nekk ndaw ba mën koo delloo ci société bi mu amal njëriñ société bi amal ko njëriñ ci jikko amal ko njëriñ ci yar ak teggin amal ko njëriñ ci diine waaye amal ko njëriñ it ci lépp loo xam ne day jëm ci luy defar société boobu ci wàllu développement loolu nag am na fii te amit ci pàcc bu am solo ci société bi mooy jigéen ñi loolu tax euh, ñu am mbégte torop di sant bu baax nag ñi organiser ziara bi euh, biñ ci dugalee programme bu ni mel mooy euh, sëñ Ba Sadis mi ak sëñ Cheikh Thioro Mbacké ak euh, ñëpp ñi nga xam ne bokk nañ ci liggéey bi nga xam ne ñoo ñu jox occasion bi li nga xam ne mbébét la woon ci bu yàgg ñu amoon yéene jaar fi tey ñu mën fee jaar waaye di gërëm surtout waa daara ji régisseur bi jigéen ñi fiy jàngale équipe pédagogique bi ñoom ñëpp ñu dalal ñu ci dalal goo xam ne ñu ngi leen ci sant bu baax a baax a baax ndax dalal nañu ci ubbeeku ci déglu waaye it wane ne war nañ ñu cofeel goo xam ne ñun sax bett nañu kon ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla li nga xam ne yàlla digg na ko képp ku nekk ci taxawaay gi ñu nekk ñoom yàlla na leen ko yàlla may defal leen ko waaye sax yàlla na ko yàlla ful loolu daal moo ne woon tànk yi jërëjëf waaw yéeg-yéegu jullit rek jullit moom wax naa ko léegi ci waxtaan bi ak noo munti mel bu dee desee na la tuuti sig njulit foo gis koo xam ne mi ngi ci liggéey bu mel nii euh, da nga koy naw d'abord parce que kenn ku ne su ñun su sañoon ci lii lay nekk ndax xam nañu lan mooy palaasu lii fa yàlla kon muy doon yéeg-yéeg bu njëkk mooy am li tubaab di wax admiration xaw ma naka laa ko wax ci wolof mooy mbégte ak sax xawle na ñee ndax suñu sañoon tey duñu doon usmaan Sonko bi ñuy dégg suba ngoon gu dégg bëccëg ci loo xam ne gaa am na solo trop ci réew mi waaye nañu bokk ci ñi fiy toog di def li ñuy def nii di ñaareel bi nag mooy toujours yu mel nii suñ ko defee day delloo si ñu xel ci lu am solo mooy mën na am lii euh, fardu kifaaya la mën na am ñun ñëpp mënuñoo bokk def ko waaye bu amee ñu ko ñu ko taxawee rek ci fànn woowu mën na teggee ko ñu ca des waaye la ci des yëpp du teg du ñu teggee ko mooy kenn ku nekk ci ñun loo mën pour jàpp ci loo mën ci jàpp ci parce que peut-être ñoom euh, dinañu am kersa ci wax lu bëree bëri waaye ñëpp xam nañ ni lii yombut ndax gëw ma ni fii am nañu subvention buy jóge ci état. gëw ma ni am nañu ay bailleur yoo xam ne mën nañ jël engagement ne man maa jël lépp kon soxlawul ñu dugg ci détail xam nañ ni jafe-jafe dina am jafe-jafe loolu nag ñun ñi ñëpp di ay jullit bu kenn ku nekk amoon yéene ci daara gi ak daara yu mel nii ne nu mu tuuti tuuti weer wu nekk ci la may fortaatu dinaa yëkkati nangam mu sama contribution defe naa dina wàññi mbir mi bu baax a baax kon appel boobu la ñuy lancé it Sénégalais yëpp mooy daara lu am solo la ci société ñun waa ñun ñii di jullit ñoo war a jàppale daara yi kon nañ ci góor góor kenn ku nekk li nga ci mën même su dul looy def tout le temps waaye de temps en temps sa xel dem ci peut-être euh, njëgu benn carte crédit mën na dem ci daara kon ñu ciy gën a góorlu loolu daal mooy euh, yéeg-yéeg bi ak message bi nga xam ne bëggoon nañ ko lancer. jërëjëf di delloo ziar yéen itam académie mi nan ah. waaw ñu ngi leen nuyu du nuyu sëñ Mountakha Ndiaye mi seen kilifa ak mboolem ñu ko seqal. waaw euh, li ñu jot a waxtaanee moom yaakaar naa ne ñu bare nga fa woon mooy ñëw na dégg dégg na daaray maam jaara daara yi maam jaara daara yi ñëpp la réew mee ko moom doomi réew mi lañ fi samp di leen yar di leen jàngal. di leen yar ci diine di leen jàngal mécc lu mel noonu nag réew mu mu nekk ku nekk ca réew ma ak koo mën a doon war nga faa mën a dem xool la fa nekk te gëm ne la fa ne lañ fay def yow lañ koy defal ndax sëm réewoo ko moom ku loolu am nañ ci loolu mbégte rawatina bi nga xamee ne euh, ñëw na fekk fi borom dëkk bi muy Cheikh Mouhamadul Mountakha mu siyaare si dëkk bi boo siyaaree see dëkk bi dem ci barabu Soxna Jaara dégg na daaray maam Jaara mi ngi fi war nga am curiosité bu toll na dem fa xam daara ji nu mu tëdde lan moo fa xew loolu yaakaar naa ne ni mu waree ñëpp noonu la ko waree moom mi fi ñëw même personne étrangère yi ñëw ci dëkk bi sax buñ fi ñëwee fekk fi sëñ Muntaxa donte dëkkuñu Sénégal buñ déggee daara ji def fii ñëw ambassadeur euh, Arabie Saoudite ñëwoon na fi yeneen ambassadeur ñëw nañ fi kenn ku ne ñëw nga fi ndax dangay dégg daara maam jaare mu impressionné la impression boobu nag képp kuy nit te bëgg lu baax boo déggee li fi nekk dana la impressionné ba mu war a jar nag jóg ñëw ci daara ji ngir xam li xew ci daara ji lu mu doon. bien sûr <laughs> ay politiciens ñëw nañ fi ba tàyyi euh, ni ni fi président de la république di ñëwee moom mi nga xam ne mooy borom réew mi lu ñuy def ci réew mi lu ne moom lañ koy defal mu di fi ñëw. noonu la fi ay politiciens di ñëwee euh, politiciens yi fi ñëw mënuñu leen a lim defe naa ne chef de parti yi su ma juumul ñi ëpp ci ñoom ñëw nañ fi ndax dégg nañ daara ji am ci impression xam ne dara la joo xam ne ku koy dégg ku ne war nga faa dem visiter ko ndax la fa xew mooy fu ñuy defaree ay nation la fu ñuy fu ñuy defaree jigéen jigéen nag ku ko defar ku ne defar nga société société boobu nag ñëpp a ko bokk. rawatina société boo xam ne dañ koy defar te société ba nekk ci sam réew loolu boo nekkee ci réew mi te wax ne réew mi sa yitte la war nga fee mën a ñëw teg fi sa tànk. si am na am na am na ñoo xam ne sax yàlla da leen bindee lañ bëgg a def duñ ko wax am na ñoo xam ne bu ñu fi ñëwee ba daara ji impressionné leen yéene ji ñu am dañuy génneewaale ak yéene ji suñ demee ba àgg nag door a jëmmal loolu. fekkee dañ fi dañuy joxe ndimbal ci xaalis dañ koy yónnee en catimini yoonu kenn du ci nekk ñii buñ bëggee bu nu biggalee bu dëggee dimbalee ceeb dañ koy indi ñii bu ñu bëggee jox yére dañ koy indi ñii bu ñu bëggee tabaxal dara dañuy am defar projet bi ñëw defar ñu ko waaye du du caagi ni dañuy ñëw ci biir daara ji wax ñu ko ñu di ko dégg li nga xam ne moo am daal mooy bu ñu ñëwee ñu présenté leen daara ji ba mu leer leen am na ñoo xam ne nag dañuy génn ak seeni yéene suñ demee bàgg nag ci la ñuy door a réagir. nga jekki-jekki gis ñu indi fi loo xam ne duñu bëgg sax ku ko xam duñ bëgg sax sëñ bi ci boppam xam ko yàlla mi ñu ko séqal moo yàlla rek lañuy bëgg mu xam ko loolu gis nañ ci gis nañ ci yu bare bare bare bare bare non noo non ñun loolu kenn duñu ci dugal ñun duñu politique politique bàyyiwuñu fi ñun daaray alxuraan lañu yor yor bu ñaanukaay ku ne sañ nga fee ñëw tàllal say loxo ñu ñaanal la ndax alxuraan fi ne diine fi ne am maa ñi fi ne nag ay nit lañ ñoo xam ne dañuy am fu ñu far li war citoyen sénégalais bi moo leen war cim réew waaye am maa jëmme daara ji nag loolu du fi feeñ ndax daara la loolu taxu koo jóg li ko tax a jóg mooy defar nit ngir ëllëg waaye politique walla lu ko nuru loolu moom du am ci biir daara ji boroom daara ji nanguwu ko ñim fi bàyyi it duñ ko nangu. jërëjëf soxna si ñu ngi leen di delloo.